dénkaane sëriñ bi ak yenn tontu yemu daan tontu ak tomb yemu daan tomb fi suuf moom nag dañu doon def lu ñu jot rekk bind waaye amut nañu ko toftalee jiital nangam tekki ci nangam daanaka it amut turu ràññiku majjunooxa rekk lañu ko miine te it daa mel ne ca daaray kaamil rek lañ koy ëpp wuute waaye nekkut lu ñu mool ba di ko jaay mel na ne am na nag mool bu mbokk ya ca Italie defoon te dollu ci yeneen yeneen xëy na ku leen laaj bëgg ca am xam noo ci amee moom nag dadi téere bu bari njariñ lool ab taalibe man ci gàggantiku ci anam yu bari lool mel na ne sax taalibe bu ndegam fekkiwutoon sëriñ bi nekk ci ronam bu dee déglu rekk wax ya daan wax te jàpp ne bu dee dénkaane moom lay dénk bu tontu moom lay tontu bu dee tomb moo ko taxoon di tomb day mel rek kon daanaka ma nga woon fa ron sëriñ bi su ko defee nag mu farlu ci lépp lum ci dégg rek jëm koo kem kàttanam bu dee lu ñuy jëfee jëm koo moytu kem kàttanam bu lu ñuy moytu jëmmi téere bi ci boppam moom lépp arab la waaye nag da ci am loo xam ne sëñ bi ci boppam moo ko defal boppam muy arab am ci loo xam ne daa am ñu déggoon waxtaan wa mbaa ñu jële ko ci ku ñu doyloo daldi koy soppi nag arab waaye du sëñ bi ci boppam moo def loola arab li nga xam ne nag sëñ bi defu ko boo ca àggee dana di am béréb yoo xam ne bu fekkee déggoon wolof ya ci cosaan mën naa am dégg wax yi arab wa du yombee noona fu mel noon nag ba nu fa àggee léeg-léeg nu am baat yu nu tëb léeg am baat yu fa yokk ndax mën a leeral maanaama xëy na itam nag nga gis béréb yu bare bari na téere ba binde nun jàngewunu noona